question au sein même de mais Bamba wax na ko léegi su fekkante ne da nga accepter dem en coalition c'est-à-dire tu d'être en conflit avec ñi nga xam moom ñoom nga fa fekk loolu c'est des choses à prévoir moo tax boo gisee même chaque fois au sein de coalitions dañuy teg li ñuy wax chaque fois comité de crise parce que éventuellement crise dina am affaire bi ñetti pàcc la le moment des investitures des candidatures d'abord des investitures et aussi de la mandature mooy bu ñu la falee candidature yi ku nekk mën nga présenter sa candidature mais du ñu investir ñëpp te ñi ñuy investir bu ñu gañee ñoom ñooy dem exercer mandat yi léegi parti bu ci nekk en tout cas surtout au sein même de l'opposition dina ñëw léegi parti au pouvoir surtout au sein même de Yewwi Askan Wi parce que jour yi ñoom ñoo polariser vraiment euh, l'attention de tous les Sénégalais surtout notamment le cas de y à un certain en tout cas le gel des actions de, de PASTEF, bien sur au sein de cette coalition la Mais lolo aussi, man, ma ci c'est une stratégie que PASTEF Dakar l'exerce sur Tahoe Sénégal. Parce que Tahoe Sénégal, seen le problème principal de Dakar. Moi, ils n'ont pas, encore, ils pas encore réglé le problème de Barthélémy Diaz et de son Wardini. Parce que jusqu'à aujourd'hui, loolu mooy seen problème principal. Nous avons Khalifa. Soham la gën a jege bon d'autres aussi disent que Barthélemy moo ëpp légitimité Soham au sein de en tout cas de taxaw Dakar. Taxawu Dakar soo xoolee par exemple Soham Wardini li ko indi tey à la mairie de Dakar c'est parce que il était deux il était deuxième sur en tout cas après Khalifa Sall ñu embastillé Khalifa Sall donc nécessairement c'est elle la maire de Dakar mais il faut pas oublier que dafa gagné sa commune ba pare diriger ko. donc kooku tey am na benn légitimité boo xam ne nii am na ko pour prétendre à la mairie de Dakar léegi nag le dilemme de Khalifa moo di nan lay def ba résoudre le problème de Soham et le problème de Barthélémy Diaz surtout que les gens disent de plus en plus que Barthélémy se détache de Khalifa Sall. que Khalifa penche ah, plus pour Soham Wardini. non ça ce que les gens disent. man sama gis-gis et ils sont plus pour euh, Barthélémy Diaz. non le PASTEF ñoom je crois amu amuñu ci ku ñuy faral PASTEF ñoom si li ñu bëggoon mooy. mu am une clarté une lisibilité au sein même c'est-à-dire de Taxawu Dakar parce que ñoom aussi seen candidat c'est Abass Fall et au sein de cette coalition là ku nekk da nga am sa candidat boo xam nga ni moom ngay présenter maintenant au moment des investitures ñoom ils trouveront peut-être un terrain d'entente pour mën a xool kan la ñuy investir au niveau de Dakar mais xale Sall doit régler ce problème là et aussi d'autres problèmes yi nga xamante ne am na ci yenn comme par exemple le cas de le cas de de Bamba de Bamba xam nga Bamba Fall anciennement les gens ont dit dugg na génn na mais man li ma jàpp dama ne non Bamba Fall mënul lu génn parce que dans la mesure où Bamba est déjà normalement ci taxaw Dakar la doon nekk donc moom su fekkee ne génn na foofu peut-être ça n'engage pas la grande coalition mais ça engage surtout taxaw Dakar parce que c'est un membre de taxaw Dakar mais Bamba en tant que entité politique ñëwul woon par exemple adhérer au projet même de yeewu askan bi et même problème qu'ils ont au de Dakar cest ce problème des investisseurs aussi va se poser au niveau de Thiès bon maintenant ñoom nee naa leen en tout cas la capacité nu ñuy reconnaître une grande coalition c'est pendant les moments de crise comment faire pour transcender ces problèmes là parce que ce qui est sûr et certain crise moom dina am loolu coali ku bañ sa coalition am crise boo ko constituer soo jëlee tey au sein de wàllu Sénégal le problème commence à se poser au niveau de parce que certains disent que Pape Diop moom moo am légitimité pour briguer la mairie de Dakar parce que dans le temps il a eu à gérer ça. pour la coalition Wallu. pour la coalition Wallu. mais les gens du PDS disent non que Pape Diop c'est pas lui de briguer pour l'instant ñoom ils n'ont pas encore présenté un candidat mais Bokk Gis Gis ñoom seen candidat c'est Pape Diop mais PDS pour l'instant ñoom ils n'ont pas de candidat au niveau aussi de Mbacké le problème se pose parce que Abdou Bara Dolly aussi les gens disent que c'est pas lui de se présenter au niveau de la commune de Mbacké problème yi mënul ñàkk ci biir coalition yi soo jëlee maintenant la coalition du pouvoir c'est le même phénomène déjà au niveau de Saint-Louis gis nga sa que Mary Teuw Niane a moom ne na qu'il pleuve qu'il vente qu'il neige il va se présenter tey foofu ñëpp jàpp nañ ne Mansour Faye qui est le neveu du président euh, comment dire le beau-frère moom lañ fay sampaat mais moom ne dina dina samp le cas maintenant du PS parce que PS ñoom tamit il risque maire yu bëri yoo xam ne dañ fa nekkoon te ñu nekk ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar boo saagantul dinañ ko ñàkk je donne le cas de Kaffrine xam nga déjà Kaffrine Abdoulaye Wilane mooy maire bi mais le ministre Abdoulaye Seydou Sow ñëpp xam nañ son engagement politique et ñëpp xam nañ ne aussi aujourd'hui c'est quelqu'un qui est un sérieux prétendant à la mairie de Kaffrine léegi nag maintenant pour déjouer éventuellement peut-être certaines frustrations wala yenn yenn yenn yenn pièges yi ils ont déposé une coalition, une caution au nom du Parti socialiste. De ce fait, éventuellement, s'il y a des, des maires qui ont été taille, des Beno Bokoyakar, c'est-à-dire leen ñoom librement au sein même c'est-à-dire du Parti socialiste ci seen i caution war nañ mën a ñëw tabb seen i maire foofu te ce même problème boo deful di nañ ko gis au niveau de Kaffrine mais loolu aussi lu muy wane que ne au sein de Benno ñoom aussi c'est-à-dire Macky ne maîtrise pas ses troupes. Kolda aussi waaw parce que su fekkee ne Macky maîtrise na ses troupes. ce serait aberrant de voir quelqu'un qui est dans la coalition Aminata Mbengue Ndiaye ba pare dem présenter c'est-à-dire déposer caution pour le parti socialiste ce qui veut dire que parti yëpp tey c'est-à-dire coalition yëpp ñu ngi préparer éventuellement à des crises profondes ñi ci échappé pour l'instant mooy la grande coalition gëm sa bopp te ça se parce que ñoom soulevé wuñu le problème des investitures c'est vrai qu'il y a des candidatures déclarées par-ci par-là parce que Mohamed Diallo déjà moom il s'est investi comme pour la mairie de Dakar mm-hmm. et déjà am na ñoo xam ñoo loolu ñu ngi koy contester oui. mais pour l'instant ñoom ñoo échappé ci coow li mais qu'il se prépare parce que coow moom mënu ñàkk feet mais man li may wax mooy di bu fekkee ne coow am na aussi qu'il trouve les ressources et les moyens nécessaires politiques pour essayer de surmonter les crises mais su fekkente ne nag ñoom dañuy pare ragal crise waa ragal ay frustration je crois que ce n'est pas la peine de mettre sur pied une coalition parce que comme ni ma ko booy dugg ci coalition mooy tu acceptes d'être en conflit avec ñi xam ne ñoom fekk alors quand tu dis peut-être que président de la République choses entre autres ñu ngi échappé mais est-ce qu'on peut le dire ainsi parce que ñëpp a ngi toog di xaar président de la République prononcé wu Oui, mais le président de la République, bon, en tout cas, le chef de Benno Bokk Yaakaar, certainement qu'il va se prononcer. Bon, certains sax ñenn ñu naan moom maire sortant yëpp yu Benno Bokk Yaakaar yi daf leen di bëgg a reconduire. pour man loolu c'est une aberration. ñu koy wax je crois que c'est une vue simplement de l'esprit. parce que tey bari na ci maire yoo xamante ni moom xam na ne su leen tabaatee. à 80 pour cent da koy da koy ñàkk. D'accord. parce que une bonne partie de ces maires là quand même ils ont montré leur leur limite et Seydou wax na ko léegi maires yooyu ñu ci bëri tey par décence ils ne doivent même pas se présenter au niveau de cette localité parce que lañ fa nekkoon ñëpp nit ñi xam nañ ko ils sont dans le foncier ils sont ci yenn njuñ njaaj ils sont dans le détournement ils sont dans les malversations te loolu lépp il y a aujourd'hui des rapports yoo xam ne ni yu épinglé fii maires yu bëri mm-hmm. ñoom ñoo bon, Macky ne va pas du tout s'en servir pour essayer de pour, pour ne pas fragiliser sa coalition mais ñooñu moom ñu ci bëri tey par décence il ne doit plus se présenter et si par extraordinaire Macky reconduire leen ce qui est mooy ñàkk na presque à 80 pour cent maire yooyu d'accord alors euh, ban sor moo moo nar a nekk sooru wàllu wàllu Sénégal oui damay na rek ma am lu ma lu ma lu ma leeral foofu ci ci li sëñ oh. Saliou wax ci mbirub euh, yëngu-yëngu yi nga xam ne ñu ngi koy dégg ci biir mm. coalition yi mm. di ko wax ne ñun pare nañ ci yëpp xam nga mooy li ma wax sànq munoo ne da ngeen di dem di waajal élection dajale ay mbooloo ñuy ñëw te doo ci sóoraale ne coow war naa mën a am boo ko sooraalee nag bu coow loolu dikkee di nga xam noo koy gérer mais coow loolu bu fekkee ne yow sóoraale woo ko frustration yooyu sóoraale ko bu dikkee da ngay am problème te encore ma koy waxaat le président Bougane Gueye Dany donte du ab politique. c'est un homme privé c'est un homme d'affaires mais nag nañu bàyyi xel ne dafa am ñoo xamante ne ay acteurs politiques lañu. dañ koo séq te ñoo nekk ci biir. kon côté boobu ma ci euh, dalal xelam di dalalaale xelu ñeneen ñi nga xamante ni. <laughs> Ah, non damay dalal sa xel. sëñ Saalum non dama ci dalal sa xel te di dalalaale xelu ñeneen ñi nga xamante ni <laughs> dañoo am cofeel aussi dañoo bàyyi xel tamit gëm sa bopp ndax actuellement macha allah sànq bi wax dama ne macha allah laf cat. ñun bu ñu coow li topp waaye nag dañ koy sóor non mënta ñàkk dañ koy sóor waaye bu dikkee rek jàpp leen ne ñun ci biir la grande coalition gëm sa bopp mm. ñu ko gérer non bu baax a baax pare nañ daañu ko gérer incha allahu rabbi merci beaucoup. alors euh, ñu ñëw ci ci ci wàllum PDS PDS euh, ñu bëri doon ko xaar ci yeewi askan wi après ñu gis euh, nu mu demee ba ñu dem bokk coalition dem carrément am beneen coalition mu di wallu Sénégal tey ay ay ay ay guerre de positionnement ñu nar ko xaar comme ni ñu koy gisee ci yeneen ci yeneen coalition yëpp peut-être ci PDS mu ngi wax tout à l'heure le cas de mu ngi wax waxu cas de Dakar qui va se poser lan lañ nar xaar ci coalition. position euh, peut-être bu wàllu Sénégal pour euh, préparer wu à tout ça déjà. justement nee naa Aïcha merci beaucoup euh, man balaa may commencé di la wax. Mhm. ci problème problématique yi am peut-être yi ñu wax ni supposé problème. yi ñuy wax dans la presque ni am na ci coalition wàllu askan wi damay commencé par remercier li nga xamante ne moom mooy PDS ginnaaw raay Nord ak nos alliés yi nga xamante ne ñoo nekk ci la grande coalition wàllu Sénégal ginnaaw raay noor euh, maanaam dans sa composante euh, wàllu ginnaaw wàllu askan bi ginaaw raay noor euh, bokk gis-gis ànd jëf PADS sa présidente Koura Gueye bokk gis-gis dërgën sëy CRD nga xamante ne ci bopp bi ñu ngi ci teg Lamine Bay ak jot na nga xamante ne ñooñu ñëpp dañu àndandoo bokk ndey bokk baay trouver un consensus fort autour de la personne de mam Diarra Fam loolu mat naa leeral loolu mat naa rafetlu loolu mat naa sante say nawle parce que su fekkente ni yow yi ngay àndal gënoo leen ëppoo leen xam-xam ay nit yu euh, ñoo xamante ne ñu yàgg ci politique bi lañ euh, yàgg ci liggéey yàgg ginnaaw raay xam ko ñu boole ñoom ñëpp seeni doole ñëw ni la yow doy nga ñu jiital coalition bi loolu ça veut que ni lu lu rafet la te lu may rafetlu la te mënuma woon toog ba commencé ci waxu coalition bi. te waxuma ci loolu. parce que dafa mel ne soo ko dee seet ginnaaw raay bi ma dëkk actuellement benn candidat rek lañ fa investir agum boo xamante ne wax dëgg yàlla. Ah, ba juste moo tax nga def sa assemblée générale. non loolu du assemblée générale xam nga loolu waxtaan ak presse bi la woon parce que lu ñu wax ba pare il faut ñu toog waxtaan ak presse ndànk wax leen na leen lii xew na fi donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen remercier di wax ni confiance bi ñu am ci ñun duñ ko perdre mais ñun aussi fi ñu dëkk xam nañ ko xam nañ ginnaaw raay bu baax Euh, dëkk yi Sicap Liberté HLM je sais pas quoi maa j'ai fi nga xamante ne fa la poto poto yi ak ndox mi dëkk boo xamante ne man maa am intention takk sama sër ànd ak ay nit yu am volonté defar ko ba mu mel ne dakaar wala mu raw ko donc dëkk boobu man maa ko bëggal sama bopp choisir ko taamu ko ma wax ni ñépp ma jàppale ne na ay Aïcha plus de vingt cinq associations tey adhérir nañ ci sunu ci sunu cause treize associations démb 17 association bokkul ak association yu mag yi te jàpp naa ni sama doom Bougane Gueye Dany man lay jàppale ndaxte wax fa dëgg yàlla ku mu bëgg la ku baax la jàpp naa ni aussi euh, Ousmane Sonko sax man lay jàppale si jàpp naa ni même waa benn Bokk Yaakaar li ma ci commencé am parce que ki nga xamante ni moo doon porte étendardu Macky Sall ak ginnaaw Rail muy Modou Dalin maa ko ni ciix téye ko teg ci loxo kon Macky du bougé fenn foofu maa ko imaam yi non waa bokk gis-gis laa jiital ni dërgën sëy son président imaam yi damaa wax dërgën sëy son président wax ànd jëf PADS kuréel gay son waa sant yàlla bu baax nag loolu nag du man yàlla la ak Sénégal donc li nga xamante ne moo xew seen ginnaaw dama bëgg mu xew fépp te ci loolu laa def sama tànk di ci dox pour mu xew fépp ay cas nga may wax ay individualité gis nga dama am sama président moo Baye Mor Diagne ma koy nuyu au passage di ko sargal muy mag mu baax yàgg ci parti démocratique sénégalais daf daan wax naan euh, choc d'ambition saa yoo déggee choc d'ambition rek bàyyi moo ko wax ci fédération choc des ambitions waaw choc des ambitions mënta ñàkk ci politique parce que nit ñi dañu bëgg xam nga tey fi la grande coalition tey ni mu toll ngay wax PDS PDS ak ni mu toll